asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki julli rawatina mbokki taalibe yi daayira ansaaru diin sëriñ murtada mbàkke mu sëriñ tuuba cheikh ahmad bamba sosoon ko ci atum 1993 ñooy am mbégte ci di leen yëgal université d'été bi ñu baaxoo amal at mu jot fii ci ndaam al azar mu di ab lël bu am solo war a nekk diirub juróom-ñetti fan lépp nag ñu jagleel ko waxtaan ci luy jëmale diine kanam rawatina xam-xam wala lépp loo xamante ne bi dana jëmale am réew kanam méngoo ak diine séminaire boobu ci juróom-ñetti fan yi dina am njàng ak njàngale mu am solo moo xamante ne bi daañu ko amal waaye bu ñu demee ba ngoon dina am ay conférence yu am solo ñu fas yéene tànn ay thèmes universitaires yu am solo mu nekk itam occasion ci ñi nga xamante ne bi nar nañoo doon ëllëg ay étudiants wala ñu fas yéene génn dem sàkku ji xam-xam bitim réew ba tax na ñi ngi ci woo ñëpp ñu di ko tàmbali ñaar fukki fan ak juróom ci weeru août ba benn fan ci weeru septembre fii ci ndaam ci teewaayu ay professeur ay kilifa diine ay boroomi xam-xam ak mbooleem koo xamante ne bi weccoo diine ñor la ba tax na waa ansaaru diin ñi ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuñ kenn ñaar fukki fan ak juróom ci weeru août ba benn fan ci weeru septembre fii ci ndaam wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu